alors euh, vie ñu dem ci l'observateur li mu xëyee tey jëlee ci àllarba bi ci xët wu njëkk bi l'observateur gis ngeen ko euh, fête de l'indépendance entre défi majeur et défilé magnifique moom la xëyee euh, ci feetu 4 avril démb bi ak quatre piliers du discours décrypté par les spécialistes muy veillu fête bi ak discours bi njiitu réew mi yëkkati l'armée aussi étale sa puissance de feu ci défilé bi loolu lépp ñu ngi ko tënk ci page 2 3 ak 4 bu l'observateur l'observateur ñëw itamit ci réew mi bu Idrissa Seck Idi Diatara les raisons d'un profond malaise xam ngeen ne da koo dindi ci poste vice-présidence bi nga xam ne moom la ko tegoon troisième mandat élément déclencheur de la destitution du vice-président de Rewmi c'est à lire à la page 4 euh, du journal ci wàllum yoon ab condamnation ci Serigne Saliou Samb ak réaction surprenante ñu ne bu Ferdinand Coly ci page 9 moom nag nee na li mu bëggoon mooy euh, père adoptif am ci jamono ju muy dund muy Bernard Poncet mu euh, fekkee verdict boobu moom Ferdinand Coly nekk ancien international euh, de football l'observateur ñëw itamit ci wàllum tàggat yaram tam sport au creux de la vague des footballeurs ouvre le cahier d'un retour au pays natal Euh, page 12 la nekk euh, l'Obs di faral di def euh, kay ramadan jamono ji la Medina Baye Cheikh Mahi Niass l'histoire d'un révolutionnaire devenu khalife sous l'influence de de Nkrumah et de Gamal Abdel Nasser mi ngi ci page 15 wala 5 bu journal 5 plutôt bu journal l'Observateur réseaux sociaux yi ak liñ ci nemmeeku kenn ku nekk ci TikTok rek di tàgge ay nit bi ci ki ci mugg mujj nag di xalima Gadji tey l'Obs xëy na xëy na ci kayaar Mboro xam ngeen ni mool yi foofu dañoo amoon ay jàppante ba euh, ay euh, gaañu gaañu am ci ba ñu ne sax am na ci ku ñàkk bakkanam ñu waxtaan euh, ci L'Obs wax ci jafe-jafe yi am ci diggante nappkat yooyu la ñu jàll ci record ak li mu xëyee tey Vieux Diouf ci xët wu njëkkam tey ci wàllum tàggat yaram Ferdinand Coly moom moo ci nekk gis ngeen ko ni ak nataalam ci différent bi am digganteem ak Saliou Samb nee na je me suis battu pendant huit à dix ans diggante juróom-ñett ak fukki at mu ngi xeex ngir ak ak yelleefam am ko tribunal bu Mbour nee na dafa wax yoon lu am na ñoo xam ne dañoo doon jàpp ni sax moom ñàkk na ba noppi li muy conseil yi tamit ay jeune frère am moom Ferdinand Coly mi ngi koy wax ci biir euh, journal record euh, page 6 euh, Ligue 1 13e ak 15e journée journée en retard Guédiawaye football club vise le fauteuil Génération Foot pour le podium TP Jamono mooy maanaam après une période de recul le président Baye Ciss reprend les commandes page 4 la nekk France 8 buts en Ligue 2 Ibrahima Wadji la renaissance en Forez et puis Coupe du Roi demi-finale retour à 19h matchu Cheikh Tidiane Diawo bi un Real revanchard à l'assaut du Barça lañ ko mën a lire incha allah Cheikh n'est-ce pas. masawu dèjà ñoom El Hadj ci défaite bi ñoom ñoom El Hadj Malick ma di masawu ci défaite bi. subaat lañ toogaat fi wax ci. Ah, incha allah subaat jàmm incha allah rabbi ñu wax ci <laughs> bu soobee yàlla. à demain sëñ Cheikh. suba Ibou ba subaat jàmm. incha allah jërëjëf soxna Naata. Mhm. Euh,